dama ne woon walay sa loxo déet di ñeel ku ñu dénk laf jàpp min aa ci moom li ma ñeel koo xam ne sala moo toll nag bi nit laa ci kemb walaaw jurtu istihaadu jéegée ni yoonu wattoom maanaam nit sa ñëw ni ko nag léegi li nga ma dénk da nga may jox garde bi fayam waaye bi xilaat maa leen laaj barab ba su fekkee la ñuy dénk barab bañ koy dénk bañ koo war a fay kooku nag sañu dénk te sañ ne ko ni fay barab bi da nga koy joxe nga ne ko lépp ñun ñëw nga cëpp ci ka dénkaane ak ku ñu dénk ka tarkuha bàyyi dénkaan ba ci dénkaane sañ naa laajum dénkaaneem sañu dénkoon sañ na ko delloo wayin wax boobu yem ko mu ne wayin aw daan dem dénk la sabbi yan ndaw dénk de gone gu ndaw aw axra doo wala mu lebal ko ci kanam tuuti aw baaxoo wala mu jaay ko faat la fa gone ga sànq ko lam yen man du wàllu soo dénkee gone wala nga lebal ko gone ga sànq doo gone ga du warlu dara nee na aw safiyan wala ab def moom nga dénk aw axra doo wala mu lebal ko aw baaxoo wala mu jaay ko faat la fa def ba sànq ko nen lam yen man du war waaw waaw nga ne wayin bi ismu ahli ñu ne xanaa gone ga ba nga koy dénk wala def ba duñ ci ndigalal ñooñam mu ne mu indi teeri doon ci ndigalal ñooñam la ndax gone sari ategu ko dara wala wa taala xajoot na dénkaan bi ci métti ma suuni ci baatu jaam bu ñu digal yaxantu xaaji leen léegi léegi su fekkee ni tey jaam bu ñu digal yaxantu la nga dénk ko su ko su fekkee dafa réeral dénkaan ba wala mu sànk ko da nga la ko fay ci alalam ah waaw wa dana aju ba tey bi ci métti xëyri yi ci baatu jaam bu ñu digalul yaxantu kenn ataxandeem gore na fay ko bu fekkee da ngaa dénk jaam bu ñu digal boo xam ne kenn digalu ko yaxantu su fekkee dénkaan ba dafa sànku moom bu goree na lay fay kenn nit ku dundam it ko saydu sang waaye bu ko sang ba ne rasal naa ko nag ko nit da ngay ñàkk wayen xaala ndeem wax na tey nit daf dafa dénk nit am keneen ku ko dénk kañu dénk kañu hiya moom dénkaan bi day li ehdee kuma ñeel na kenn ci yéen ñaar te ñaar ñëpp dañ koo dénkoon lu mel noonu mu ne leen ah xaw ma ku ko ci moom de waaye daal kenn ko ci moom war na si tuhoo waaye fàtte naa ko te xaala faa ñu gin ñoom ñaar ñu ko si mat sa dëlëm dénkaan ba day ma seen diggante waaw waaw ñoom ñaar ñu ko ko cëli sa dëlëm nga ne wayen aw daxan deen dénk na gis nañu ñaar tey dilat defet ko di yeddil ahdali ci loxol ko gën a maane waaw waaw baabul bunt lii mooy abbu saxa wér na xaaratu maalikin man faatin abalu aji moom yenn ñu able ay nan jëm ci kanam tuuti dafa xaddam ñaari yoon xaaratu maalikin man faatin mu able ay nan jëm ko moom njëriñ mooy ku luye kër bu la neexee nga able kër gi nga luye wala di ba ko soppees la ko yit la xaaratu maalikin man faatin dégg nga de mu able ay nan jëm wér na bila ajjiriñ ci ñu dul yiir waaye ku ñu yiir moom sañ sa able ñu ci gone wala def wala yu demee noonu way mustahirum donte aji ab la ci ab dara sax mën na koo ablewaat dégg nga de su fekkee ni néewuñu ko bu ko ablewaat waaye laa maa li tinti fayi ni xuma aji moom ji jëriñoo aji moom ji jëriñoo mooy ku ñu ubbi na kër a nga xam ne jëriñoo rek nga moom suñoo able dama ne able nag ka ngay abal min ahli tabarru i nay ku yelloo coobarewu àll yi ca lañ ko abal mu wattandiku ab yéefar nga bëgg koo abal jaamu jullit dana ko indi léegi li man faati ñeen njëriñ it mu baa am jullit daganal ay nan jàngoo li man faat ñeen njëriñ lu baax mu watandikul bëgg ab la njëriñ lu dogañu kon laata ci minu xumay demee ni ci siminu nga di ko abal musliman jaamu julit loolu mooy julit sante coobarewu dégg nga de ci ab yéefar sante coobarewu ci julit kon loolu mooy ali tabaruhi alayhi mu tura sama ngox wa jaay ci ak jëréer li nga ngir laal da nga ne ab jëréer boo ko ab la ngir laal loolu dañ koo tere ndax ab la fay la da nga di aw xidmatin wala ngir liggéey li xëy dama remuñ ñal ko du ko almalam ndax jëréer bi boo ko abalee ko du ko almalam dañuy wéet te wéet googu dañ koo tere moo tax doo ko abal ko du ko almalam aw li man wala nga abal jëréer ba koo xam ne sati ko day gore ali waral ko loolu it ba tey wéru maanaam jëréer boo ko abalee koy gore waral ko koo xam ne jëréer ba day gore waral ko ni ki nga abal ko baayam wala càmmiñam kooku moom itam su boobaa loolu wéru ta bu tàbbate waat ci waye moom liggéey ba laxaañeel la ko ndax jigéen jaam bu jigéen wërta liggéeyal koo xam ne bu ko moomee mu gore waral su boobaa liggéey ba ndaw saa koy moom nga ne wal ak imatu able ñam nag xardun la bi ci kanam wala koo du able kee xardun la bi da nga de nga ne able nag maasaa yokku ngeen yokkoon dana nekk dimaa ci lépp loo xam ne yodul dana mu takkale lu nekk abal naa la lii ak lu dana noonu wa jaasa dagal na ay ni dimbali mag di xulaa nit sa sere li ay nit ngir naa dimbali la ci jaaratuñ si yoone dagal na nga ne waa ji dimbali ma ci saw sere mu liggéeyal ma tey bu subaa ma jox la sama sere mu liggéeyal la wér nga ne wa demee ne war not na loolu nag yooloo lay doon wa demee ne war not na moom aji àbb dégg nga de maxki ba lépp lu ñu mën a fàddoon ali ci moom ñu ne saw mën ilaali bay nit ndara ciy seede dégg nga de bu fekkee nag dafa am ay seede yoo xam ni dégg nga de dañoo fekke ba muy sànku kooku nag su boobaa du warlu sëriñ bi nga ne mën waal jaam yàlla aha ba nga déggee aji abbu dana warlu da nga de wayen sart doonte sartoon na fi yow dàq warlu ko kon dana warlu am moom kay bu sartee dàq warlu ko du warlu te dun am nañ ci deng deng waaye la xëy ruxoo waxuma lu dul lu ñu mën a fàddool de boo abbee lu mel ne kër kooku moom bu daanoo te defoo ca dara doo warlu sëriñ bi nee na wala bu sàccin doon dañoo sàcc warlu gay doo warlu waaye wa alaka junet na si maa ci loo xam ni ku ne ma xamet na tañ andoona ko moom dafa sànk bi laa sababi ci sababam te soo si nit ki wal maanaam dangaa ab ab bant wala mu fet ay gunóor dugg ci ba yàq ko dana fa wa dana jinne anoonu ko maa farata sàgganul da dégg de daaj yam yàlla mu ne wa bari adalet la moom ku ab ci katri te seen ci damm lu demee ni ki jaay te abda lu demee ni ki jaay ci mu damm da dégg de da ngay dañ kenn du la topp dara ñun fii dem def na loo ñëw ko anoonu ko maaw ànd ak mu ci la xaay ci daje ba te booba xeex dañuy xeex a jaay ci abda jaay ci jàmbur ñëpp seede ne gis nañ la su demee doo war aw dara ba wala dóor na bii ci jaay ja ba dem ci dóoru kanam koy su boobaa du war bu demee mu ne wa faala jëfat na moom ku ab almasono lañ ko digal ah li ki dañ leen daaba ji nañ ci suuf bërigo nañ ci suuf bërigo pep te mis loo ak camam da nga lu mel na noonu li ki dañ leen nañ ci suuf bërigo pep mën nga cee suuf bërigo pep ndax ceeb ak pep ñoo tolloo te doo ñu ay lu ko yées li ki dañ leen nañ ci suuf bërigo nga da nga lu ko yées nga suuf ca cinquante kilo waaye laa dara ko moo lu gën a lor de li ki tey dañ leen nañ ci suuf bërigo nga suuf si bërigo genn wàll kooku moom sa ñëw nee na wayn saadan yan dolli na nag moom ci abonnement loo xam fecc bu dana alcool bii ci moom daa daaba ji nga xam ne dangaa da nga ko fës loo xam ne da koy yàq da koy yàqoo bu dee oto bu dee daabaa mu dee wala woo ñeel na borom daaba ja kii ma taa xaymay daabaam aw kiraahu wala mu laaj ko tontu bi waaw waaw bu ko neexee mu laaj la xaymay daabaam bu ko neexee mu laaj la tontu ndollant boobee rek dégg nga de dégg nga de mu ne karat bi si nit ku ñu togg tey dangaa ab daabay jàmbur togg si nit su boobaa bu neexee borom daaba ja dégg nga de dañ koy tànnaloo moom itam ah bu ko neexee mu jàpp xëy na daabaam bu ko keroog ba ngay togg bu ko neexee mu laaj la tontu ko nga togg. waxtu bi nga toppees na ku ñu togg ka moom mooy fay tontu ba in ahdama ndem ñàkk na ka ko toggoon wala mu yaxlam te xamul woon bil ihaarati ci abal ga kon nag ñu dem ca ka nga xam ne moom la toggoon mu fay tontu ba. dama ne woon wa in saada ndem dolli na maa loo xam fekk bi ma alku bii toom daaba ja wa ilaa ndem daaba ja ca alku nga xam ne la nga dolli nag du yàq dara ca daaba ja fa kiraawoo tontu ndalantu ba rek. moom ngay fay yow mi abboon wala ci mati war na al mu xëye dati abb bu ñu tënk di amal luñ ci jëf war na liñ ci daayi ba ci jeexu jëb da nga koy alma machine bi da nga dem ba sama tool jeex kon nag su boobaa abb ga war na ba tool ba jeex ci kanam suuf aw ajami wala bit war na liñ ko daayi ba dig ba jeex ni ko da nga ko ne abal ma ko ba weer wi dee bu weer wi dee kon ba tey abb ga baax na ba abb weer la dee wa ilaa ndem tënkuñu ko ci ab jëf tënkuñu ko ci bit kon nag kon mu taadu lañu baaxoo rek maanaam lañ ko baaxoo ñaare ko abb aw fas boo ci bayee ba ngoon nga delloo bu dee machine boo ci bayee ba mbay mi jeex nga delloo nga ni wala hoo ñeel na aji ab ixraaju génnee wala hoo ñeel na aji able ngay wax ixraaju génnee ci sa dinaayin ci lu demee ne ci tabax yéen dafa andeen jënne maa nga xam ne an saxa dudina ko dangaa abal nit suuf ab diir mu tabax ba diir ba jeex li ci abal nga ko fukki at mu tabax ba diir ba jeex bu la neexee nga génnee ku nag jox ko lam fay woon ko tabax ba te nekk na ci mu doon ay dem ba tey xiimatoo mu ne xëy may tabax ba rek la koy jox mu ne waa jaam yàlla nekk diggante ñaar téere mari bi ndax xilaafam da di wuute ndax dafa ne woon maa an faxa am fu mu ne xiimatoo xëy ma ja bu dee wuuteen ñeen leen ñoom seen saari baax aw wala moom kay ba mu ne xiimatoo xëy ma ja xanaa ilam yëstadi ndéem da koo jëndul mooy da koo liggéeyal boppam moo tax ñu ne na ko jox xëy ma ja aw wala moom kay ba mu ne xëy ma ja xanaa in taala ndéem yàgg na nga xam ne léegi kon ba mu yàggee màggat na moo tax ñu ne na ko jox xëy ma ja aw wala moom kay ba mu ne xëy ma ja xanaa in siraaw ndéem da koo jënd di xam ne ci naxeel ka ci leen gu bari moo tax duñu xool njënd ma xëy ma ja rek la ñuy xool taawilatul am nañ ci ñetti jantal sëriñ bi naan way xarat ngeen jeex na mu defal binaaye diiru tabax wala kar ak jëmbat sa atte ba karkas bi ni ci fukk la boo abalee nit suuf mu jëmbat ca ay garabam tabax ca bu demee ba diir ba jeex mook atte fukk ñooyam mooy loo bëgg a wax da nga de boo la neexee nga jox ko xay may toj itam te mu génn wayin daaxaa ndeem wooye na ab alaaxi su aji jàpp bi wala maa ko aji moom di wooye kiraa attan da ngaa war fa su jàmbur dem ci ba dellu si da nga de mu ne nag ah yow kat abalu ma la ko woon dama la ko nuye woon nga ne ko danga ma ko abaloon kon kaw lu wax ja la hoo ñal na aji moom ja aji moom ja la ñuy dëggal da nga de nga jox ko tontu ba ñu ne faaw mu ne am yi ana fa ndare boo dana jomlu mis li ay kemam di tonte daaba su fekkee ay kemam nag ñoom wax dëgg duñ di tonte daaba su boobaa kon nag ñu dëggal mu di leen leen ci aji moom ja la ñuy dëggal te saa yi di masaafat nekk aji doole ji diir ci nga mi si da nga dem dem dooleegul da ngaa abbu nit daaba dem ak moom ba mbuur nga bëgg a jàll ndakaaru mu ni mbuur nga ne woon ci ngay yem nga ne ko déedéet ndakaaru laa ko abboon moom la ñuy dëggal moom borom daara bi wa ilaa ndem dolli na ba noppi dangaa dem dikk ni ko waa ndakaaru ñu ne mun la ah mbuur laa waxoon de te wax jëli mu sayi ñel na aji sàkkoo jaa abbu ka ne woon ni ndakaaru laa abboon moom la ñuy dëggal da nga de ci la fi demaa ni dàq warlu ga wal siraay ak tontu ba yëpp te mooy du la fay diggante warlu warlu diggante ndakaaru mbuur da nga de day dàq ci moom tontu day day dàq xanaa booba loolu ba muy jël daaba ji dafa yónnee ndaw mu ñu ko indirisee leen donte ndaw la mu xaalisum duñu aji wutale ndaw la dafa ñëw ni la mbuur te fekk moom ndakaaru la wax kon it su boobaa moom du warlu diggante ndakaaru ak mbuur dégg nga de sëriñ bi nee na ka daw waa u mu dilee ne la leen ci maanaam ñàkk warlu ba ñi ki bu wooteem moom ku ñu abal ka raddamaa delloo si loo xam ne la ñoon man du ko warlu lépp lu mu dul wàllu bu ne delloo si naa ko nga ne ko delloo si woo ko moom la ñuy dëggal wayen saama dem tudd na ne ànd hoo naka moom mu solun ku ñu yónni la li saat ili ngir abbu takkaay wa talifa takkaay la sànku damin hoo war na ko bërsilu hoo aju yónneem sun sa daxoo ndéem dëggal na ko benn waaye dafa ñëw ñu ne diw ma yónni nee na nga abal ko takkaay nga jox ko takkaay la takkaay la sànku ka ko yónni woon mooy warlu wa ilaa ndéem dëggalu ko dañu ah yónni wu ma ko woon xala fa mu giñ moom ka ka dégg nga de ka yónnee woon wa bari ate mu bañ suma xala fa topp giñ rasoolu ndaw la wa bari amu dañ moom itam way ni sarafa ndem ndaw la tudd na bil adaay ci jëlgati ne man mii maa jëlgati de waaye kenn yónni wu ma woon damina warlu alxuru gor su fekkee gor la wal abdu ak jaam bu fekkee jaam la fi samatii ci baatam in ataxa ndem gore na bu gore doola fay loola comme moo ni moom moo jëlgati wayen xaala ndem wax na ku ñu yónni aw toltoo jote naa la nga ma yónni woon lahum ñeel mbooloo ma dégg nga de mbooloo ma weddi sa alayhi war na ko xal yéen nii ni ngiñ ci kanam tuuti waaye wa alayhim war na mbooloo ma it xal yéen ni ni ngiñ dangaa jox waa ji dara ni ko demal yóbbu ko mbooloo ma la ca penc ma mu dem mbooloo ma ne day fen andiwu ci dara dana jum waaye mbooloo ma it danañu jum waaw waaw ma ne woomoonut ak saa coonab jàpp daa bañ xalal mustair war na aji abbu ja aji abbu ja moo war a jël coonab jàpp ba dégg nga de maanaam jël si daaba jaagi deme noonu mu ne karab biyaa ni ci delloo si ga war na dégg nga day ceg ka nga xam ne moo koy abbu xaala sëñ wax si gën a sëñ parce que am si daaba nit ki yafalub daaba wala ndax yafalub daaba ju ñu abbu war na aji abbu ja wala aji ab na jot ba tey mooy joxe yafal xam naa ne am nañ si ñaari wax yafalub daaba nag ndax daaba ju ñu abbu dégg nga de mu nekk ci yow yow yaa ko war a yafal dégg nga de ah am moom kay yafal ga waru la dégg nga de xaw laa ne am nañ si ñaari wax baabu alxas bu fëkk ak sumaalin mooy jàpp alal xaxran ci notaire fa ab yéen si jëlgati bila iradati ci lu dul gugg wa udiba yareef na aji fëkk mu may suñ ko di aji jeqee def na ko yar aji fëkk ji jeqee def na ko yar ndax fëkk bokkul ci li nga xam ni melokaanu yiw la xamu de ni ko aji wooye fëkk ala saani il waral aji yiw def na ko yar nga ne waxi alti ma tool yi nit ñi ku ne réeram biram xamuñu yiw la wala yiw la nga wooyee fëkk dégg nga ci moom ndax dana jigéen ñàkk gàlliñ xaw naa ne am nañ ci ñaari wax te dana ne war na aji fëkk dana warul lam fëkk di laay ci méngoo ga su fekkee moo ko méngoo ba mu ànk kon su boobaa dana ko warlu ba mu yàqu wa ilaa leen méngoo ko waa ji dafa fëkk keneen ñëw yàq ko parce que am nañ dégg dégg ci dana warlu ak ñàkk daa warlu nga jëlee ne ngay ci warlu nga te an maata li ci deen deen dégg nga de aw ko ci la wala wees abdul jaam xisaasam ci xisaas dangaa fëkk jaamub jaamul mu dem dee ci àll bi wala ñu rey ko ci xisaas da nga war aw rek ba wala mu war daaba soo waree daabay jaabur fëkk ko dégg nga de yàlla dogal daaba ja xam ko da nga war aw sabaxa wala mu rendi da ngaa fëkk lu ñuy rendi dem rendi ko kooku moom itam da nga war moo xam xar la wala lu mel ne moom aw jaxada wala bu weddi ba dee ci dénkaane nit ki da ngaa weddi dénkaane yàlla dogal dégg nga de mu sànku kon su boobaa da nga ko warlu te di aw akala wala mu lekk bi laa ilmin ci lu dul xam tey bu fekkoon ni waa ji dafa fëkk yëfi jaambur ñëw nga lekk ko te xamoo ko it yow moomu ko lekk da nga warlu aw akara wala mu porte xëyroo keneen alakal ko ci sànq ba li ki tey waa ji dégg nga de dafa fëkk yëfi jaambur dégg nga de benn waay forcé kenn mu yàq ko de ka forcé nit ka kooka moo koy warlu ka forcé ka ko yàq mu këri mooy mooy warlu afara wala mu gas biiram ci teen saa biiram ci jël gëti dégg nga de maanaam yow da ngaa teg yoon woo xam ne kenn waru faa gas nga gas sa teen kooku da nga warlu lépp képp ci sa daanu te waaye nag waxu dina jëtalet na mur di aju alal ja alahi ci aju gas bi bu fekkee benn waay dafa da ngaa gas seen bi ci ku jël jëti léegi benn waay ba max ci nit ah te ca ba max la ñuy jiital doog la caa teg ilaa li mu xëy nin dina def koo gasee ngir jëm di ñu ràññee ni ki dama ne damay gas fii pour alal ci jiw nit ñëw ba max ko ca parce que yaa ni ñaari way yemoo lañ ñoom ñaar ñëpp la ñuy xisaat dañ dineen aw fata xaybin wala mu aw fata xaybi abdin wala mu ubbi jëngub jaam boo xam ne dañ ko jëngoon laa laa yabax ngir bu dawul jaam boo xam ne sangam da koo jëng ngir bañ mu daw nga fekk fa mu ne ngay wubbi ko mu daw da nga warlu aw xalaat aw wala mu ubbi alaaxee yi aate ñu ci lu amul xel ni ci ay baahi la ñu nekk ci seen wanag wala jëpp nga wubbi ko mu dem da nga warlu ilaa bi mu saabit rabbi ndene boobu nga koy wubbi da ngaa ànd ak borom aw seen wala mu di ndàmb ni ki da ngaa di nanga ci ñu jaamu sàcc te ñëw sàcc ko kooku da nga warlu wal mis wa dana warlu moom aji fëkk almis lekk ko ci cam dégg nga de di mis lii ci cam ba ci kanam tuuti maanaam li ma bëgg a wax mooy soo fëkkee dégg nga de sappum jaamur wala ceebu jaamur da nga ko fay wala di xalaa in doon ci teen la nga xam ni donte ba ngay jënd da nga maanaam da nga jënd lu seer la la nga fëkkoon rek ngay seer wa sabara mu ñëpp ne maxtuubu min huma mooy que ñu fëkk ci moom di wu jooju ba ci amam tey nag da ngaa fëkk peppum jaamur dégg nga de yàlla dogal jamono boobu pepp amatul dana mu ñëndiku ba heure boo xam ne pepp dana am nga fay ko la ni wa dana mu ñëndiku li bale di ba ci réewam da ngaa fëkk dégg nga de yëfi jaamur mu fekk ak yow yëf yëf ci meneenum réew bu dee nit ñi yow lu ñuy nag la xaar ba nga dee si sa sa réew ma nga ko fëkkee woon nga joxaat ko walaw saa yi bu xoo walaw saa boo doon ci àndoon naa ngi moom foofa it na mu ñëndiku ba nga ñëw fay ko nga ne woo mu nekk def na xaasit minhu ci soppandiku ga li tawassukun ba di téeméer laay maanaam tey boo fëkkee yëfi jàmbur mu fekk laa ngi moom feneen su boobaa sa ñàkk nañ la doo ci soppandiku ba ba ngay indi ndëgër laay mooy lu la garanti lu demee nag it tay la wala yooyu ndax day bañ nga yàq ko ba noppi doo ko mën a fekk mu ne walaa radda déetut delloo laxoo di ñeel ko nag maanaam su fekkee tey fekk nga ka fëkk sa yëf ci meneenum réew mu yor ko doo ko obligé ni ko da nga ko delloo ba ca réew ma nga ko fëkkee woon déedéet li ko war mooy bu fekkee mis liyu la bu dikkee fay la lu mel na loola rek waaye waroo ko obligé ni ko da nga ko delloo jëmm ji ba mu àgg foofa déedéet li la war daal mooy dana la fay lu mel na loola mu ne koy jaasati yi naka wéelam bay am njaay moom maxto bu ninu ko ñu fëkk ci moom daa fekk ku fëkk yëfam jaay ko ba mu ko jaayee mu wéyal njaay ma fekk mu doon lu am ayib saa mahi ban lu ayib mahi jaay ko wéelam moom maxto bu ninu bay anawoo njaayam xaasit mahi ban lu ayib saa la loo xam ne bañ na ayib bi waxaana mu ni ajastu wéyal naa njaay mi li sànni baqaa yi ngir defu jàpp defu ayib bi yàlla dogal gannaaw ba ñu ni ko lan la xaasit jaayoon teg amatul ayib sañatu ko sañatul ni day siri njaay mi déedéet waa ji fëkk na ko yëf mu am ayib mu jaay ko nga wéyal njaay mi daal di nangu njëg gannaaw ba ñun la ah loola kat ayib ja dañ na nga ni kon damay firi njaay bi sañu ko déedéet sëriñ bi nee na te nuq rek mu di leen réeral ci maanaam day jël xayma ja rek waaye du ko nangu ka nuq rek ni ki dogitu wurus ci kat woo xam ne tëgg na ko xaasi doo fëkk sa dogitu wurus jëm tëgg ko takkaay soo dikkee xayma da da lay jox xayma dogitu wurus rek wa si nañ ak ban lu dina boo xam ne moo lëf na ko waa ji doo fëkk sa ban mool ko su boobaa da lay jox lu mel ne ban ba rek mooy ciment waaye du jóge ni ngay jël mool ba xam ne ak xam xut ko ko fële joo xam ne dëgg la daa fekk sa xam ut dëbb ko ba mu sotti ku ak wal soo dikkee sa xam xut ju mel noonu la lay jox waaye doo jël wal ba ba basirin ak jiwu sori awoo xam ne bayat la dama fëkk saw jiwu dem bay ko ba mu nekk mbay soo ñëwee doo jël mbay ma sa xëy na jiwu la lay jox ba bay din ak nan ufriqa boo xam ne cuuja nekk la dama fëkk say nan dem boofal ko ba mu tag doo ñëw doo jël cuuja xëy nay nan la lay jox dégg nga de ilaa mandara dafa fëkk ngina ginaaw loo xam ne baada day nan il xadana dem du la boob li ki dama fëkk sa ganaar ganaar ga nan boob fas nan ya tag kon nag boo ñëwee jëloon sa ganaar ak say cuuj yëpp yaa ko moom waxaat yi ak na nit sa xamaras boo xam ne sàngaraw la da ngaa fëkk na nit jàmbur mu sàpp ko sàngara su boobaa bu ñëwee da nga koy jox xëy na na nitam waaye du jël sàngara wayn ta xala ndem njaw na na nit gën a koy la tànnaloo maxtubu min huma ka ñu fëkk si moom dina ko tànnaloo bu ko neexee jël njaw la noona bu ko neexee laaj na xëy na xasiiram da ngaa fëkk na nit jàmbur mu sàpp ko njaw suñu tànnaloo borom ba bu ko neexee jël dégg nga de njaw la bu ko neexee jël xëy na na nitam mu nekk sa xalu laa nit njawam moom sàngara sa li si ñun ñël si ñun da nga naan maanaam da ngaa fekk sàngara ci simili mu soppiku maanaam njaw su boobaa bu ne fii ba nga jox ko xëy nay sàngaraam dégg nga de dañ ko tànn wa temps yéen ràññi kot na maanaam nag jàpp xëy njaw la li xëy ri yi ñeel ko di simili da ngaa fekk sàngara julit mu soppiku njaw su boobaa julit ba nag moom lam war a def mooy jël njaw la rek waaye bu mu laaj xëy nay sàngara ndax julit warta nekk xëy nay sàngara wax boobu la ko nga ne wa insanaha leen jëf na moom xaasit ka xas lu demee ni soxi da ngaa fëkk fokk jàmbur dem daal di koy rabb malaan sa xiimatoo war na xëy na ji si kanam si yow ma xas bii di fëkk waxal yéen ak sa kaay boo ko fëkkee dem tànk fa xiimatoo war na ko xëy na ja yow ma xas bii di fëkk ba waxee nit yéen lu dul ko cam boo ko fëkkee fa xiimatoo war na nga fay xëy na ja yow ma xas bii mooy lu dul lu ñu wàññi du lu ñu naq boo ko fëkkee dëgg de yow xëy na ja ngay fay yow ma xas bii waaye jël damay tuñ daru na dila woon it loolu moom ngay fay lam ñu boo xam ne sa day jëfu ko fëkk ko xëy na ja ngay fay aw kalban wala mooy xat boo xam ne day rëbb nga fëkk ko da nga fay xëy na ja wala xatal loo doon reer na ko saajeen cër gëti day fay xëy na ja nga ne wax koy rataan lox na ci ay nit yin dégg nga di maanaam ci bomuk jaamur tey da ngaa fëkk yëfi jaamur yàlla dogal beneen da ngaa fëkk yëfi jaamur ak keneen bom ko mooy ay nit yi dañuy tànnloo ka nga fëkk yëfam su ko neexee mu topp la yow mi ko fëkkoon bu ko neexee mu topp jaamur ba léegi nag fayin tabi oho ndeem topp na xaasit ni ko yaamay fay kabiha topp oo moom xaasit aljaani aji bom ja kon jaambur ba ko bom ngay dem moom itam mu fay la léegi fayin axati ñoom jàpp na rabbu hoo borom ba dégg nga de ah ca xaasit akala lu gën a néew su fekkee borom ba dafa dem ca xaasit jël fa maanaam lu gën a akala lu gën a néew xayma ja fayin axati ñoom jàpp na rabbu hoo borom ba akala lu gën a néew xayma ja dégg nga de su boobaa da nga naan fa la hoo ñeel na ko ah ay saa yu dul dolliku ñoo xaasit mu tukkee ca xaasit faqat ca faqat dong wëlis la ca def maanaam tey waa ji dafa fëkk sa silaa ba mu koy fëkk xayma ji di fukk ak juróom moom lañ fënk yahul léegi benn waay bam ko ba ko waajee bam xayma ji di fukk nga dem ca dégg nga de jàmbur ba jàmbur ba daal lay jox fukk da ngay jël ci xaasib xaasib jël la juróom wax boobu yëpp dani wala hoo ñeel na maxtubu minhu xaj mu binaayin mab tabax ali ci kaw kenoom waa ji dafa fëkk sa keno dem tabax ci kawam bu la neexee nga toj tabax ba wa ñeel na maxtubu minhu ba tey xala su mustamal xala luy jëfandikoo tey képp ku fëkk sa jaam wala sa daaba dem liggéey ca lam ca liggéey nga xala ji yëpp yaa ko moom wañeel na mos ko dini tey du addin rëbb jaam maanaam bu fekkee tey doo fëkk sa jaam dem rëbbiloo ko maanaam da nga naan rëbb wa rëbb la jaam ba rëbb yëpp yaa ko moom wa jaarihin ak rëbb aji fàgg bu fekkee tey doo fëkk sa wara ni ko xoob dem rëbb ca lam rëbb yaa ko moom waxtu daaw addin ñeel na koy tont suuf bu nekk boo xam ne tabaxeet na ko waa ji daa fakk suuf dem tabax ci dëkk bu ñëwee dañ naan luy tont suuf suñu ne nangam mu fay la loola kamarka bi ni ci war waay la xiritu baaji ràpp dégg nga de ni ci waa ji daa fekk sa war waay bu ràpp mu defaraat ko dem di ko dawal ah di fay mboolem tontu war waay bu ràpp la lay jox waaye nag dañ naan luy tontu war waay bi ba mu ràppee ñu ne nangam yëkkati loola ca tontu ba jox la waaye la ca def nga ko moom nga ne waax sa jàppat na nag moom aji fëkk maa lépp loo xam ne defal na ko ca war waay ba te laa ay na déet jëmm la foo di ñeel ko xaayi matul daal di taxaw ni ki peinture bu mu def ca war waay ba ni ki daa fëkk sa oto peinturaat ko xam nga peinture bi lu ñu mën a amul jëmm daanaka maanaam mu ne si ko laal si dindi ko kon su boobaa loola moom booy jëlaat oto ba da nga ko cay boole waaye lépp lu am jëmm te moo ko ca def ni si ay buum ci gaal wala fënu ci oto su boobaa loola bu ko neexee xaasit dana ko wecci waat ko moo ko ca defoon nga ne wasay wasay di sama wa ñeel na koy ba tey wasay di sabati si ngëb bu mbaalit tontam dëgg def na ko jox max soobu nunu waa ji daa fëkk sa mbaalum jën dem rëbbi ca jën bu ñëwee dana jox tontu mbaal waaye nag moom moom la mu rëbb de jën ya moo ko moom nga ni wamaa lépp loo xam ne an faxa dundal na ko nag maanaam te gaal gu ràpp googee nga xam ne moom la fekkoon réparé ko sur xalat ci xala jëlay jën ci fëkk gaalub jàmbur bu ràpp wala lu demee ne ci war waay bu ràpp mu defaraat ko ba mu baax lam ca dawal ci xàlla jël lam ca réparé lépp ci la koy jënde mu ne waa jaam yàlla waa ji dama fëkk ci laas jàmbur sànq fekk in ataaw ndem jox la ko fii ca lu ñu fëkk la da nga naan mosu addi bi addi li mu ata an ak jox da nga de tey waa ji fëkk na soo fas fekk fas feneen na kenn fay la ci fukk keneen fay la ci fukk keneen fay la ci fukk ba mu ñett bi ndax fa dana warlu jii ca jox ga kon fukk yooyu nga xam ni moom lañ la ci fayoon moom la xaasib di fay aw wala moom kay gën a warlu bi la sëñ ca gën jaa bari min ci lañ ko joxoon wamen xëy na ak ca xëy na ja dañu sa xëy nay fasu ak fukk yéen ko fayoon lu ci gën a bari mu joxe ko kër du am nañ ci deng deng day na wen wajëra ndem fekk na xaasi boo aji fakkam di xëy yi da nga def ci lu dul la mu fëkk ca moom da ngaa fekk waa ji fukk saw fas nga dajeeg moom keneen mu yor weneen fas da nga de u xëy maa li ak sulul barab ba mu ngoog kon fa la woo ñoon na ko tëj minoo war noom ne ko nag ma jox sama xëy nay fas wa ndeem da koo fekk maa woo ànd ak moom axasoo mu jàpp su fekkee tey da ngaa fekk waa ji mu nekk ca Ndakaaru yor saw fas wala saw nag bu la neexee nga nangu koog moom i lam yëf sañ dem aajowul loola li kabiri am lim ci yel ci ci màgg yoon waaye bu fekkee tey dafa fukkoon sa feet wala mu fëkk sa suuna xam nga ne bu muy fukki bëri bi boo ko fekkee mu yor ko ca Ndakaaru xam nga pour boo ko bëggee jëloo si day nekk kon bàyyi koog moom bu ñëwee jox loolu day noonu waaye laa in asal waxuma ne laa duñu tànnanoo ka ñu fëkk ca moom kat in asalan dem làpp na jaari suñu ab jëréer su ma aada topp mu delluwaat am yaram waa ji fëkk na sa jëréer yóbbu ko mu wam ba mujj mu suuraat nga gis ko nangu duñ la tànnaloo dara jëlal sa jëréer te dem ca kanam tuuti aw na see wala fàtte ab dul jaam san atan métier daa fëkk sa jaam jaam ba fàtte métier ma su ma aada topp dellu si waat ci xam métier ma ba tey doo doo am dara jëlal sa jaam rek dem ci am aw fasaa wala mu tàpp jaam ba fanañen ko te tàpp ga wàññul xëy na ja kon it ba tey jëlal sa jaam rek aw jal sa wala mu jekki ala soo bi tey ci malaanum keneen ci platé ci julli yow da ngaa fekk waa ji di julli nga fekk malaanam mu jóg malaan ma xotti ko du la fayu dara du am dara dara warul yow aw dal la wala mu teg seelu son rugga ni ko diw am na alal barab sàngam rugga ba dem sàcc ko du fay dara dara waru ko donte nag lim def rafetul nee na aw xaada wala mu dellooti ma soo xam lu ñu tëj alaxaani yi ca mbiram ma yow da ngaa tëj teg fukki takaayal jaamu yàlla dogal ba nga ko fëkkee da nga de yóbbu ko delloo si waat ko mu mel nam meloon kon it dara waru la waaye man dem daf koo delloo si ala xëy yaa ci melokaanu bokk la woon ko fëkkee woon fa xiimatoo dana jox xëy na mu dina wax ci maanaam da nga koo yóbbu dëkk dem andi ko mu manqué nam meloon nga di ko fay mu ne ko tas yi nit ak fajam naka noonu boo fekkee takaayal jaamu faj ko ah bu fekkee da nga de kon it da ngay joxe xëy na mu ne aw xasa boo nam fakk man faatan njëriñ fa tali fa saat sànq jóg tey da ngaa fëkk kër dëkk ko kër ga daanu waaye daaneloo ko kon doo war yow daal njëriñ la rek ngay fay waaye kër ga moom doo ko war aw akaloo wala lekk ko maali ko aji moom jël yaafatan ci ganale da ngaa fëkk xarum jaambur mu ñëw gane si la nga reer ko ko mu lekk ko te xamu ko dootoo war ni aw naqasat wala wàññi li naqasat wàññi ko xayma ji lu ñu fëkk la li soo ko ngir fat ko jabar da ngaa fëkk fasu jaambur yàlla dogal ah ba nga koy delloo ci fekk na lam doon jar wàññi ko na waaye jëmi façon moom na meloon la mel doo war lu dara aw rajaxa wala mu dellu si daa ànd ak daaba jël ni safaran ci ci tukki nekk da ngaa waroon daabay jaambur dem tukkee dellu si waat ko mu mel nam meloon ba tey kooku sëriñ bi nee na doo war lu wala boo ta doon sori woon na tukki ba te taarix nekk aji sàcc moo nitam dëngal ci ñàkk warlu bi dafa sàcc daa bay jaamul jël si waat mu mel nam meloon kon nag borom ba jàpp ko rek lay def dëgg de wala nga ni wandeem dëgg dëgg de sëriñ bi ni wala hoo ñeel na aji moom ja nag ci ta addi tamus ci ta addi tamus ta jëriñ ci jël dëkk lu demee ne ci aji yoole ci raaw saay bi tontu ndolon maanaam aji moom bi bu la nuyee daabaam ni la na nga yem mbuur nga jàll ndakaaru kon da nga ko jox tontu mbuur ak ndakaaru insani mat ndem daaba ji mucc na ca ndolon wa ilaa ndem mucc ca nga xam ne dafa dafa daf caa xalab koy nga tànn loo ko fii da nga de ci maanaam tontu ba wa fi xëymatiya ak ci xëymay daabaam waxtu ci waxtu jël dëkk ba léegi bu fekkee da da la ne woon nga yem mbuur nga jàll ndakaaru léegi daaba ja xal ko ca dañ koy tànn loo nga fay ko tontu ndakaaru mbuur wala mu laaj la xëymaam wax boobu yem ko nga ne wayen sa ayaba ndem ayib na da nga de lu ñu fëkk xoy rataan loo ca kanam tuuti fii te jàpp ko noonu ànd ak ayib jëfe du amuk tay dégg nga de wala nga laaj tay nag waa ji daal sut sayëf nga dem fekk mu am ayib bu la neexee nga jël ko noona ànd ak ayib ja te doo amuk tay su fekkee ayib ja jaay te ko fekkoon jëfu ko ci nga xam ne ndogalum yàlla la doo amuk tay da ngay jël noonu ànd ak ayib ja wala nga laaj tay nag wayn xam na doonte néewoon na ayib bi ma ne ko kasri nax day ni ko dama ñaari weeni jigéen dañ ngay tànnaloo fii te jàpp ko noonu ànd ak ayib ja wala nga laaj tay nag ni ko waa ji daal fekk sa jëbeer dem ak moom ba ween ya daanu aw janaa wala bom huwa moom xaasit bu jonee koy rataan lo mastuub minhu fii ci jàpp ko noonu ànd ak ayib ja waaye day amuk tay dégg nga de bu fekkee xaasit ba ko bom day amuk tay mu mu laaj ayib ja ànd ak tay wala mu laaj tay nag aw aña din wala jaam ak ab bom bom ko ba tey koy rataan lo ko fii ci jàpp ko noonu ànd ak ayib ja te du amuk tay bu dee bomuk jaamar wala ndogalu yàlla da nga koy jàpp ànd ak ayib ja te du amuk tay wala nga laaj tay nag ka sët xëy ni ko ci suubam moom xaasit bu fekkee tey dafa fëkk malaanam jaamu dem suuf ko gis na tànn ma borom ba ko xëyma ci suñu jàpp xëyma wax soo bi ak jàpp malaanam noona bu ko neexee laaj xëymay malaanam ba muy weex wala nga wala nga wala wala nga wala nga wala nga jël malaanam noona wala fi xëyma ci sëkk ànd ak jën xëymay suuf yaa ngi lañ lay tànn noonu waa ji fëkk na sa malaan mu weex tànn dem suuf su la neexee nga laaj ko xëymay malaan ma ba muy weex wala nga jël malaan ma noona te jox ko xëymay suuf nga ni wasi dinaa yi wa def na ko tànn ba tey ngay wax dégg nga de wa dana warlu dana tànnloo si dinaa yi ci tabaxam dégg nga de bu fekkee tey waa ji doo fëkk sa suuf tabax bi dana tànnloo si dinaa yi ci tabaxam yàq sii ci jàpp tabax ba noona wa dafa xëy ma ci nuq ji ak jën xëy may kojit ya daa di fukkoo ci kon fati gannaaw rek coono nan nga ko wala boo xam ne méngoo ko woon xaati waa ji daa fëkk suuf tabax nga dikk yey ko su boobaa dañ lay tànnloo ni la bu la neexee nga jël tabax bi noonu seet luy xëy may tabax bu ñu toj ndax dafa war a toj nga jox ko xëy may tojee ci tabaxam gannaaw ba nga ca dindee coono ko ko doon toj a dana war lu ba tey man faatal bu njëriñal say di di kasi ci sa faatal bi li ki day ngaa fëkk jabari jàmbur gisu ko lu mat weer su dikkee mboolem li nga ko faatal ci njëriñal say da nga ko fay mooy war lu wal xuri ak gor ci kanam tuuti nga ni wal xuri ak gor dana ko dégg de dana ko war lu njëriñal gor bi kasi ci faatal da ngaa fëkk doomu jàmbur nga waroon koo liggéey loo nga sànq ko weer woo xam ne gisu ko su dikkee weer yi nga ko war liggéey loo yëpp da nga ko fa fay dégg nga nga ne ko xuri nit ki gor baaxoo soo xam ne jaay na ko wataasare te gantal nga joowoo dellu seem dégg nga de gor soo xam ne da nga koo jaay mënatu la dellu si su boobaa kon ah yoon nee na day nit ku mat sëkk ngay joxe day ju mat sëkk ngay joxe ndax comme mënatu ko delloo si mu feeñ ni yaa ko jaay da nga joxe day ju mat sëkk wa dana warlu man faata xayrihima njëriñam lu dul fay ak gor bis bi fawaat ci fànn ñu ko da ngaa tëj këru jaamul gu mu waroon a nuyu ab diir diir ba nga ko tëj bépp da nga ko ko fay wala waar jaam yàlla ndax yat manu dana warlu saa si aji tawak xaasit li mu xari min ñeel aakin jëri aji fayloo da nga de ñeel jëmm jëri aji fayloo saa yi dañu ëpp àlaa qadri sooli ci kam yoonu ndaw la aatin bu fa nekk fii joo xam ne moom li muy fayu mooy li yoon wax ci ku ñu kalaame rek jeneen aatin nekk fële joo xam ne day fayu lu ëpp léegi nga fëkk yëfi jaambur kañu ka nga fëkk yëfam dem tawat na ci aatin jële nga xam ne la muy fayu ëpp na li yoon wax ndax dana dana warlu moom in salama dem tooñ na maktubu min huma dana warlu loolu yi mu la tooñ dem kalaame rek ci kuy laaj lu ëpp dégg nga de aw jamihi wala lépp lay warlu sax par aw laa wala moom kay du warlu dara axwaal am na ci yëpp wax sën ko wax bi mooy su fekkoon ni tey waa ji yi nga fëkk yëfam daf laa mënoon a kalaame ci aacam bi jege jiy fayu lu jaadu mu dem kalaame na ci aacam bi sori jiy fayu lu jaadu kon ndax la aacam jële gën a ëppale aacam bi loola la lay fay wala lépp la lay fay far sax loolu mooy axwaal nga yow mala ko foofu moomat na aji fëkk dana moom la mu fëkk ni saraaw leen jënd ko da ngaa fëkk yëfi jaamur dem dajeeg moom waxaaleeg moom ba jënd ko yaa ko moom wala xaaba doon te fàddu woon naag moom aw xalima wala mu fay xëyma too xëyma ja da ngaa wooye ni sànku na waa ji ne la waaw fayal xëyma nga fay xëyma ba noppi su boobaa kon yaa ko moom ah sart nag lañu mooy ndem na xaatiwul waaye bu fekkee dana ni li nga fëkk lu mu nga misaal ko daal di wàññi ko mu laaj la xëyma ja nga jox ko xëyma ja nga génnee ko mu ëpp loola fuuf su boobaa nag bu ko neexee den loola la nga ko joxoon ko jël yëfam war a ja àddina la mu ngoog ali waral ko bi fadlatin ci ndëkit loo xam ne ak faaxaar la bu na ko su fekkee tey da nga ko ne ah lii ma sukk de xaymaam téeméer rek la mun la ko jox ma téeméer mu gis ko xaymaam mat ñaar téeméer su ko neexee mun la dolli nga ne wal xawlu wax ja la hoo ñeel na xaasit ci sala bii ko sànku léegi da ngaa fëkk yëfi jaamur dajeeg moom mun la jox ma ko nga ne ko sànku na mun la sànkuwul ah yow la ñuy dëggal wala kii melokaan wa nangam la mel kan ko fëkkee woon ni nangam la mel moo koy yow xaasit la ñuy dëggal waxadiri ak kemba ne koy dégg nga de bu dee lu ñuy natt nga ni ko bëri gola mun na ñaari bëri gola ba tey xaasit la ñuy dëggal waaye wa alafa dina jiñ de waaw waaw xaasit dina jiñ ci masala yooyu yëpp aha mu ne kamu sëriñ ni ci aju jënd mi nu tukkee ci xaasit moom la ñuy dëggal waa ji nga xam ne dafa jënd ci xaasit yàlla dogal maxsubu minhu dikk ni ko li nga jënd maa ko moom moom itam ba mu ba ba mu wér kooku moom itam moom la ñuy dëggal ca melokaan wa ak cam ba ak yu demee noonu sama xarima topp bu fay nag moom ci jënd ci xaasit laata ñëw ci mu jëg fañ ko mu jëg gisal nu mu mel loolu lay fay comme moom dafa jëndoon ci xaasit borom yëf ya ñëw na ko fay lu mel ne la mu jënd xëy ma jël li aata ñëw ci mu jëg maanaam kañ ko mujj a gisal lu xayma ja toll loolu lay jox kañ ko fa xéewal ci moom nga ni wa li rabbihi nga ni wa wax ja nag li rabbihi ñeel na borom lu ñu fëkk la wa astaghfirullah wa li rabbihi ñeel na borom lu ñu fëkk la in daaw ubayhi weel njaay na maanaam tey waa ji dafa fëkk séer nga dikk fekk mu jaay ko bu la neexee nga weel njaay na wa ñeel na koy ba tey ba- borom ba naqdu ibtil mushtari firi ngoreelu aji jëm waa ji daa fëkk sab jaam dem jaay ko comme ko jaay goreel ko bu la neexee nga firi ngoreel nga jëlaat sab jaam way jaasi soo bu ko ñeel na koy ak weelam bu ko neexee nga weel ko mu ne ma demee na war lot ni mustarin aji jënd ci xaasib lan yàlla xamul ne koo xam ne kii koy jaay xaasib la ci am biñ ci bamuk tey mustarin dafa jënd loo xam ne ci xaasib la ko jënd te xamu ko bam ko bamuk tey kon it dana war ni bu borom dikkee bu ko neexee da koy fay waaye laa sama lu ko mën ndogalu yàlla bu ko bomee ci ndogalu yàlla kooku moom du war ni nga ne waxal ci xàll yi dégg nga de ma- mustarin du ko war ni dégg nga de maanaam mustarin bu fekkee dafa jënd ci xaasib danga naan wa- wa- waxalatin ak xalla maanaam mustari ni jënd ci xaasit am xalla du war lu xalla maanaam lépp lu xalla wuta la mu jëndoon loola moo ko moom maanaam daa jënd ak oto dawal ko lu mat weer xaasit jaay ko ko borom doon koo gis lam ca dawal lépp moo ko moom munu waa jam yàlla dama ne woon mustarim bu jamee bu bomee la mu lu ñu fëkk la ba mu tey moo koy war waa jam yàlla alxatawu ba mu xatawu la ndax kal andu dañ koy def ni ki tey te kon bu kon bu boobaa dana warlu aw huwa moom wala moom tey ba mu xataw ka sama yoon dañ koy def ni ki ndogalu yàlla ca toog saa yu laa ni am na ñaar jëm ko nga ne waa waari suuxu aji doon na xaasib ka huwa ni ki xaasib la ci kanam tuuti ka doon na xaasib bu borom ñëwee fekk foog moom moo xaasiba yor nga ne waa moo xoo bu xoo ku xaasib may kooku dum ka huwa ni ki xaasib la waaye in alimaaneem xam nañ ko ñoom ñaar la buñ xamee ni ci la ci ci la may xaasib la wala ci nga doon xaasib la su borom yëfee ñëwee yaa xaasiba yam kat ak kat ku fëkk la ngay ak wa ilaa ndeem xamuñu ko nag bu di ajëkes bil xaasib ci xaasib ci fëkk yëfi jaamur may la te xamoo ko kooku xaasib la ñuy jëkk bu boobaa nag war a jaxa delloot na moom ci nga xam ne mooy maxsuubu minhu alay waral xaasib bi xala ci ma hóobii ci xale lu ñu maye la comme xaasib bu la mayee te xamoo yaa moom sa xalla su boobaa nag ka mo ka moom yëf ya moom dana dellu ca xaasib mu jox ko xalla ji nga xam ne moom nga ca xalla wu yow min mayoon sëriñ bi nee na fayin ahsana ndeem ñàkk na dégg nga de moom ki nga xam ne mooy xaasib dégg nga de yow mi fëkk ba noppi maye te amoo dara fa dana dellu maxsuubu minhu alal ma hóobi waral ku ñu may sana su fekkee tey yow da ngaa fëkk yëfi jaambur maye ko waaja xallawu ca ñu ñëw yow mi ko fëkkoon amoo dara mu dellu ca ka nga xam ne yow moom nga ko maye wax boobu yow ko sëriñ bi ne woon na fexe tàqet na saay du aju seede bil kas bi ci fëkk li aaxara ñeel keneen ku seede ala iqraar yi ci tudd tudd dégg nga de aji fëkk jë bil kas bi ci fëkk waa ji dañu man day fëkk nañu sama fas benn waaye ni man de maa seede duñ koy fëkk dégg nga de keneen ni ah man de dégg naa diw mu naan fas yi da koo fëkkee ci diw kon su boobaa ñu sàq ñaari seede yëkkati fas wa jox la ndax comme kenn seede na ni fëkk nañ saw fas kenn seede ni maa dégg diw naan fas yi ci diw laa ko fëkkee kon yaa moom mën a kasaay di nekk seede bi ñu ki sa moomeel dégg nga de benn waaye dafa seede ni fas yi de fasu diw la wala jaamu diw la lisaani ñeel daf na ko tàpp lisaani ñeel ak seedeem ñaareel bu seede bi xësa ci fëkk benn waaye bu seede ni ah fëkk nañu yëfam de muy fasam wala jaamam su boobaa ñu tàpp leen ñoom ñaar comme kii seede nañ yaa ko moom kii ni fëkk nañ ko ñu tàpp yow wa jël te defet na nag yow saa din ngay borom làqu loxo nag maanaam yaa koy téye ni waaye laa maa li kenn jëfuñu la ngay aji moom dëgg-dëgg ndax xamagul ba tey da nga koo jaay wala yu demee noonu te it ci la am tali fa ndale boo jiñ nga maa saa din ci ànd ak seede moomeel ga da nga da nga jiñ sama sama fas la maa ko moom da nga de yan wa yemenal xadaay ak ngi ñal atte te mooy mayewuma ko da nga de jaayuma ko loolu ngay jiñ mooy ngi wax boobu yem ko da way ne daati na way na jigéen istiqraan ak forcé ala xayri laay ci koo xam ne du mu aji yàlla dafa fekk koo xam ne borom daraja la wax dëgg yàlla yelloowul lii ciis jigéen ndaw si ne ah daf ma doon sàkk bilaa taalu xen si lu dul benn firnde ku dat gëti neef ndaw dégg nga de su boobaa def ne ko gëtin lahoo dégg nga ngir mu doxaa alay waaw waaw ndax dañ ko naan yow comme amuloo benn firnde boo wax loolu da ngaa jékki-jékki rek ne daf ma doon sàkku kon ñu gëtin ko nga ne wal mu taxa lahoo ngir mu doxaa alay nga ne wal mu taxa ji aji jël gëti xaaliban ci lu not moom day jaanin aji bom la ci kanam tuuti ala badin ci lenn da nga naan wal mu taxa ji aji jël gëti xaaliban ci lu not jaanin aji bom la ala badin ci lenn maanaam li ci ëpp mooy dana di yàq lenn ca la mu fëkk la mu jël ci fa in afaada fa in afaada ndem faatana almaqsuudu lu ñu jublu la su boobaa te xat ci sana bi daaba ni ko dagg gennu daaba ci ay atin borom daraja moom maanaam ni ci xaaji wala imaam nga fëkk daabaam dagg genn ba fa lahoo ñeel na borom ba ca kanam tuuti fa lahoo ñeel na aji moom ja ak tuhoo ak jàppam noona daaba ja wax naqsu ak la ca wàññiku aw xiimatuhu wala mu jàpp xëy na dafa xadal aw usnuha aw usnayha wala nga dagg ñaari noppi daaba ji te loxo ñeel na borom dagg jàppam noona wa naqsu ak la ca wàññi ko aw xiibatoo wala mu laaj la xëy aw tay salaami wala mu dagg laaru mansoom te loxo ñeel na ko ak suho jàpp manso ba noona wa naqsu ak la ca wàññi ko aw xiibatoo wala mu laaj la xëy aw labani saaka wala nga dagg sowam gàtt foo moom sooma al maqsudu mooy lu ñu jublu gàtt bu joon rek nga def lu dagg sowma te loxo ñeel na ko moom borom gàtt ba ak suho jàppam wa naqsu ak la ca wàññi ko aw xiibatoo wala mu laaj xëy waqal hi huwa moom dama ne almaqsuud waqat waqal hi ay nay abdin ak guddi ñaari bëti jàmm nga nga fokk ko fa loo ñal la borom jàmm ba ak soo jàpp jàmm ba noonu wa naqsu ak la ci wàññi aw xiimatu wala may ximit aw yaddihi wala mu dagg ñaari loxoy jàmm fa loo ñal la borom jàmm ba ak soo jàpp jàmm ba noonu wa naqsu ak la ci wàññi aw xiimatu wala xayma ja da nga mu laaj xayma way lam yëfu way lam yëfitu dama ne woon in afaata ndem faatal na almaqsuud lu ñu jublu la way lam yëfitu ndem faatal lu ñu jublu fa naqsu la ci wàññi ko rek ngay joxe misaalam kan la ba ni bàqari ni ki soowum nag nga ko faatal xam nga soowum nag nag am na njëriñ bu dul soow ndax tos ga ak yu demee noonu yëpp njëriñ la kon boo faat boo daggee soowum nag njëriñ tay tay la ca wàññi ko rek ngay joxe waaye di addina loxol jaam boo dagg tayib la ca wàññi ko rek ngay joxe aw xëy nii wala benn bët jaam boo fo tayib la ca wàññi ko rek waa at waaye nag waa ataxa goreet na ali waral ko moom aji fukk bëtu jàmba jàmba day gën a waral ko in koy ma leem xaymaaf na ko buñ ko xaymaa ndax da nga koo métti taw te walaa man adeetu bañ nag li saay bii ñeel borom ba da nga de fil faay si jël ba ci bu ñaaw te borom bi bu bëggee bañ jaam bi kenn doo ko goreel kooku kenn du ko ko may maanaam bu fekkee tey fukk nga bëtu jaam bi sariya ak ni léegi dañuy goreel jaam bi nga fay xayma ji borom bi bëgg a bañ duñ ko nangu dañ ko naan axa kay fokk ñu goreel ala la ci wax ji gën a nangu fa indi yunus mu jële ko ci wutam wala sax daaxat na sooba malaan mos la moo xam xotti bu néew la wala bu bari da ngaa xotti malaanum jàmbur na nga ko daax soo ko daaxee ba noppi jox ko tayib la ca wàññi ko wasu ujurat tabib ni ci yoonu docteur docteur bi nga xam ne day faj jàmboo bu nga fukk bët bi ndax yow mi ko fukkoon yaay joxe yool bi ak ñàkk gaa war joxe yoonu docteur ba xaw laa ni am na ñaari wax foofu la fëkk mbirum daaba ak yu mel ne moom yem li ci fëkk suuf ak ngay fas loolu in sara an dem bay na xaati fas yeyeef mbay ma li ko daa fëkk suufas jaambur bàyyi koy bay ñu di ko yay suuf sa fas kat yeyeef suuf sa xam na seet fay lam ñu tafal ndee mëneetu la jël ñu di sari ca mbay ma suuf sa jàkkas ko bi laa sëyin ci lu dul dara mbay mi ngay bay ci suufas jaambur suñu fëkk su fekkee mbay ma amul benn njëriñ borom suuf si day jëlaale mbay ma wa ilaa ndem man si la caa jëriñ fa la hoo ñeel na ko moom ak yay ja xal uhoo ak guddeem ne ko buddil sa mbay in lam yusuf ndem faatul waxtu maa waxtu woo xam ne traadu def na na mu suuf sa loo ñeel ko nga xam ne waxtu bi faatagul nga xam ne mën naa ji kon nag mu buddi loola la nga fa defoon moom dem ji wala hoo ñeel na ko it ak soo ak jàppam mbay ma di xiimati ànd ak xaymaam alal muxtaar ci wax jum tànneef imaam la xam ne mu jële ko ci wutam su fekkee mbay ma nekk na cee jëriñu su ko neexee mën la naa la jox xayma ji te jël ko dégg nga nga ne ko ay mu ne wa ilaa dama ni woon wax in lam defut waxtu ma turaadu loxo waxtu wañu na mu suuf sa faatagul wa ilaa ndem waxtu wañu na mu suuf sa faat na ni ko jinañu ba digg nawet nga xam ne njëwees la kon fa kiraawu sanatin tontu après ngay joxe bu dee ne ci kiraawu sanatin ki ci suuf atin ni ki borom nit borom nit mooy koo xam ne dafa jënd ci xaalis te xamu ko bu bayee ba noppi bu borom suuf sa ñëwee kiraawu sanatin dong la koy jox aw joxe la wala li def aaluhu mbiram xamuñu dégg nga de moom xaasib la wala mutaaddi la wala saa suuf ati la moom itam bu borom suuf sa ñëwee kiraawu sanatin rek la ko jox tontu am wa faata faat na suuf sa bi arca ci ruujam fii maa ci la nga xam ne bay na mukrim nekk la diggante aji tonte ja wa mukrim aj aji sàkku jaar tontu bu nee mukrim mooy ki joxe suuf mukrim mooy ki nga xam ne moom lañ jox suuf si muy fay dégg nga de léegi masalan léegi da ngaa fëkk suuf ak jaamu léegi ko ni kooka ruuj ba noppi ah borom suuf sa ni jar suuf sa faat na waaye nag walil mustayxi ñeel na aji yey suuf sa ak suufaa jàpp suufam noona wa daf ikiraayil arsi ak dañ tontu ruuj ba comme yow ruuj nga ba noppi borom suuf si door a ñëw dana jox ko sama ruuj rek dégg nga jëlaat suufam léegi nag fayin abandeem bañ na moom ka yey suuf sa xëy la waxeef loxo ñeel ka nga xam ne sii moo ko mooy aji tonte ja dégg nga de ni ko ci jox ko kiraasane suñ tontu ak teew nga bay wa ilaa moom moom itam dem bañ na moom teewul ba noppi ni du joxe tontu ak ñu ne ko aslimaa jébale ko ci kon bi laa seen ci lu dara ak ci bàngo sëriñ bi nee na nga ni wati si nii na wa ndeem dafa tontu suuf ci si nii na ci ay at ba mu bayee nangami at ñu yey ko yaf saxu dana firi ko aji yey ja la def ci at ya aw yum dee wala mu wéyal ko lu mu bëgg a wax da ngaa luye suuf fukki at bay te juróomi at borom ne jalañ yey ko su boobaa juróomi at ite def bu ko neexee mu firi ko bu ko neexee mu yëg seen arafa ndeem xam ne nisbata ak Sénégal su xamee la def comme fukki at nga ko luye woon maanaam juróomi at yi nga jot a bay juróomi at ci def lu mu war a toll su boobaa bu ko neexee mu wéyal wala xëyaat jëf tànn la lu mu tëri ñeel mu tëri leen audati ngeen audat maanaam duñu tànn lu mu tëri bu ko neexee firi juróomi at yi ci kanam déedéet soo xamee ne borom suuf si ko yey nee na mën na maa bàyyi juróomi at yi te nga fay rek yow mu tëri fokk nga jël ko bu ko defee wan tax da teewloot na aji yey ja yeneen tax da ngeen teewlu woon na lawlu ak jëf ja fi ay suuf si su fekkee ko jëkkoon lu muktari dafa teewlu woon juróomi at ya juróomi at ci desit bu ko wéelee dafay daal di teewlu ni ko jox ma léegi fay bi wa umirate wóoloof ko nag huwa moom aji yey ja dégg nga de na fekk nag muy ku ñu wóolu moom aji yey suuf sa wan xalatu xalla wax boobu yam ko nga ne wan xalatu xalla nag li ci suuf ak ñeel na borom nit maanaam ki nga xam ne dafa jënd ci xaati xamu ko moo moom xalla li hukk mi ba ba ñuy àtte ci kanam tuuti ayi maj óoli wala ku ñu réere mbiram ku ñu réere mbiram mooy koo xam ne xamuñu xaasib la xamuñu si sukkasi la mooy moom xàlla li hukk mi ba ba ñuy àtte waaye nag gis bu ñu àttee nag nga xam ne aatam àtte na ni kii ko ni diwa moom yëf yi su boobaa keroog nag xàll ja kañu àtte yeyal ko moo koy moom mu ne sawaari si ni ci aju donn dégg nga de moom itam ki donn maanaam maanaam nit ki ki donn moom itam mooy moom xàll ni ki tey waa ji fëkk na yëfi jaamu dégg nga de jaay ko nit kam ko jaayoon dee ka ko donn lu mu ci am ci xàll moo koy moom bu borom lu ñu fëkk la ñëwee it ka donn mooy moom xàllam waa ma hóodin ak ku ñu may ku ñu may ci bopp nit da nga naan aha mooy moom xàllam maanaam ki xaasib may te xamul moom moom xàllam moom sëriñ aji jënd li ñu ci xaasib ki jënd ci xaasib te xamul ni ki xaasib la kooku it mooy moom xàllam inam yoo xam ne moom mu ngoog dem xamuñu ko woon waaye di xilaat ci day nin loolu it naag borom bor boo xam ne dafa rot ci alaawaari si waral aji donn waa ji dee na bàyyi ci kër dana yi ñëw luyee kër nangami at benn borom bor ñu cëpp andi lu wér cëñ ay seede ni anee nañ ko alal joo xam ne ëpp na kër gi ak liñ ci luye mboolem la ñu luye woon lépp muy xàlla dañ koy boole kër gi fayee ko kawaari si nekk aji doon taraa koo xam ne rot si ne alaa nit ñi waral kemam dégg nga de maanaam aji doon ji dafa rot si fekk ay kemam ñu luye seen këru bàyyi di xàllawu ca nangami at mu ñëw di moom itam dono la moom ñooma bokk bàyyi su boobaa lañ xàllawu lépp dañ koy jëmee monsieur doo ko ñëw ilaa ngeen asi andré boo jëriñu ne aji doon su fekkee nag kër ga dëkkuñu ko woon a luye dañ caa dëkkoon dong ba am ay at seen doomi bàyyi ñëw bokk ak ñoom su boobaa nag lañ jotoon a dëkk moom duñ ko fay xalla daal mooy lu ñu luyee lu yaas ba moom dañ koy séddoo waaye bu dee dëkk rek la nga xam ne jëriñu la kooku moom duñ ko fay dara wax boobu yam leen wayen xal sa ndéem jëmmat na boroomu ngir maanaam soo sukkatin moo jëmbat aw banaa wala mu tabax tey yow da ngaa jënd ci xaasib xamoo nga jëmbat ba noppi wala nga tabax kii la waxeet lil maalik ñeen aji moom bi a ci jox ko xaymatoo xaymaam xaymaam muy aji tax dégg jox na xay jox ko xaymaam la mu jëmbat ak xay may tabax muy taxaw fa in abandem bañ na aji moom jëni may itam du ma ko jox loolu te loxoo ñeel na ñeel na ko borom suqatu dafa xiimatil ardi mu jël xaymaytu moom itam nañ ko joxe xaymay doom yi nga xam ne borom suqatu dégg nga de su ko defee aji jëmbat jo loo ñeel na aji jëmbat di ngay wax dafa xii te mooy borom suqatu bi rek li ma waxoon dégg nga de dafa xiimatil ardi jël xaymay suuf te in abandem bañ na fasadi kaan ñu ñaari way bokkaat bi xiimat ci xayma yow ma ëpp bisu àtte la borom suuf sa na am lu toll ne xaymay suufam ka jëmbat am lu toll ne xaymay jëmbatam ñu ne faaw mën ilal mu abbasa nga def suuf soo xam ne dañ ko ubus le maanaam tey dangaa jënd suuf suñu ubus le nekkete ki la ko jaay xaasib la borom ñëw ni suuf si dama ko ubbi li woon kon nag fa naqu bi sa jot ya rek dañ lay jox yow la nga fa jot a tabax lépp xëy may sa jot lañ lay jox ndax suuf suñu ubbi la ah moom kenn du ko joxe xëy may sëriñ bi ne na wa damina warlot ni xaymatal mustaaqi xëy may xaaj bu ñu yey ba da nga de boo dégg xëy may xëy may lu ñu yey rek da nga tey yow waa ji dafa fëkk jëbeeru jaamur jaayal yàlla dogal borom ñëw yey ko da nga ko jox xëy may jëbeer wa wala daxa ak xëy may doom ji yow ko gisu attam wa dana warlu it akala jëm jaa néew in akasan jàppante te dayetan daye doom ja nga xam ne moom nga am ci jëbeer bi suñ ko rayee jox la daye gën jaa néew ci xëy ma ja ak daye ja lu ci gën a néew moom ngay jox kañ ko fëkkee woon ci moom waaye laa sadax uriti waxuma canu gor doo ko warlu da nga léegi jigéen a ngi nii léegi dañ la ko jaay ñu la jëbeer la nga tëdd ak moom ay at mu feeñ di gor kon su boobaa can ga doo ko joxe aw xalla taxaa wala xalla ja lam la la jëlee lit doo ko joxe nga ne wayen wax boobu yom foofu nga ne wayen adama ne mab la mu kërin aji luye suuf taa jën ci ngir jël jël maanaam dañ ko luye suuf mu toj kër ga ci jël jël fekk nag ka ko ko luye moomu ko ah maanaam xaasi bi falil mustayiqi ñel na aji yey di naq du tëjit ya su dikkee ka yey suuf sa dana jël tëjit ya wa qiimatu adna xëy ne mab la dañ naan kër gi ba muy taxaw seet dara sikku ci luy xaymaam ñu ni juróomi million ñu ni duñ ko tojee luy xaymaam ñu ni ñaari million ñu seet diggante ba loola mukkër yi ni ko mabbi ci jëlgati fay ndax comme yow xaasib moo la luye woon nga dem faj ko ci jëlgati yow itam dana fay wax boobu yam ko sëriñ bi ne wali abra oho ndeem dañal na ko mukk donte dajaloon na ko mukkuri yi aju tonteer donte nga xam ne mukk kala luye woon kër ga da nga de dalaa dalaa dañaloon it du tee da nga fay loolu mu di leen réel ci warlu nga dégg nga de te taarix ni ki aji te taarix abdi ni ki aji sàcc jàmm su may si ko topp yeyef jàmm bu ñu boo fekkee da ngaa sàcc jàmmu jàmm gannaaw ba ñu yey ko ci sa loxo dégg nga de benn waaye buñ ko yeyee bu boobaa kon ah ka ka ko yey sëriñ bi nee na mu di dana ci sàcc bàyyi warlu ka taarix abdi ni ki aji sàcc jàmm dem jaay ko su may si ko topp yeyef jàmm ba sa loxol ka ñu ko jaay kon nag bu ñu ko yeyee kon nag su boobaa ka ko jëndoon moom du fay dara te sàccoon jàmm ba mooy fay xayma bi xilaati mu sayxi mu dee uratin loolu naaj aji yey aji woote ji ngor benn waaye dafa cëppee dëkk bi ne moom gor la ah nekk ci ay at dégg nga de yàlla dogal benn waaye ni cëpp ni kii sama jaam la woon su boobaa nag lépp loo xam ne fii moom kooku nit jëfloo woon na ko ko lu mu liggéeyaloon nit loola lépp ka ko yey ci njaam dana ko dana ko ko fay masalan benn waaye jóge ne fa la ñëw ni la man gor laa di la liggéeyal rek di denc di la liggéeyal di denc di la liggéeyal di denc ba mu am ay at sang ba ni cëpp su boobaa da koy jël jëlaale lam la liggéeyal lépp dugal ci kooku tenal xale la ndara lu néew bu la la jëyee la lu néew nag loo xam ne aajowul fayu kon su boobaa mu jël ko moom dong nga ni wala hoo ñeel na aju yay xat mu masjidin mabbu jàkka tey na ñoo tabax ci sa suuf jàkka bu la neexee boo ñëwee nga toj da nga de nga ni wala si xandeen yayeef na baadul lan fa kalmat bi da nga def fa atte ba kalmat bi lu ñu ñëkka lu ñu jaayee da nga de da nga naan su fekkee tey dañ laa jaayoon tey juróomi sila niki juróomi xar ñu yey genn wàll ga mu ñu yey ñaar ya mu def na ñett yey yey su boobaa fa la la ca des kalmat bi niki lu ñu jaay la bu ñu yeyee ñaar ya ñett ya bu la neexee nga téye ñett ya ci topp ñaar ya lam tollool ci njëg waaye nag waru jënd la fi lu taxul ci xayma ja waaye duñ jël ci tudd ga ndax xar ay xaymaam da dul yemoo nii mën naa jar fukk nii jar fukk ak juróom nii jar juróom kon nag bu ñu yeyee ñetti xar ya ñaari xar ya dañ naan ñaari xar ya ñu yey luy xaymaam ñu ni ñaar ñu ni ñetti xar ya fa def luy xaymaam ñu ni fanweer muy lakkul su boobaa kon sañ ngaa téye ñetti xar ya ñu delloo la ñaar fukk ci njëg waaye bu ñu yeyee la gën a bari nag dootoo sañ a téye la gën a néew di topp xayma yi la gën a bari loolu mooy wax nga ni wala hoo ñeel na aji yey ba tey raddu ahadul abdayni delloo kenn ci ñaari jaam dégg nga de sa boo xam ne yeyeef na abduluma ba ngeen seen ñoom ñaar tey dañ laa jaay ñaari jaam nga jënd ko ñëwee ba ca gën a baax bu la neexee nga delloo benn ba bu tam ci ngor nga xam dañ ko yey ci ngor ñëw na gor la mu ne kaan taala niki ne néewén loola an ay bin walif ayib baaxara ci beneen jaam tey benn waaye daf laa jaayib jaam nga gis ci ayib dem mu jox la beneen su ko defee ñu yey benn ba bu la neexee nga delloo ba ca def buñu ca yey rek sëriñ bi nee na mu ne waa jaam yàlla ndax yu xaw mu def na xayma nawalu jaam bu njëkk ba yow ma sul ibbi su yéwén loo ba ba fa lañ koy xayma seet nu mu toll aw yomal ba yow wala si jaay ba lañ koy xayma dégg nga de taawi laa ñu am na ñaari jantal sëriñ bi nee na wa insalaha leen yéwén loola parce que yeef maa la nga xam ne biyed yi nekk na ci loxo biyed yi nekk na ci mudd yi nekk na ci loxol aji woote ji loola rajax mu dellu si ma xorim bii ci ma xorim bii lam yëfut moo xam ne faatu daa fekk waa ji am na ko sax nga ne ko fa si maa ko moom taxawal tay cee de bañ atte jox la ko mu daal di yëkkati aw nag yéwén loo caag ñëw kon su boobaa ñu yay nag wa ci sa loxo kon nga delluwaat ci foofa ndem fa soo faatu wa ilaa ndem faat na nag da nga naan fa fi xiba ji mu dellu ci watt ga kon la la jox su fekkee ni maanaam fa soo faat na ci loxoom te yey nañ naaw nga xam ne moom la la joxoon kon nag su boobaa nga seet luy sa xëy na fas la jox la ko te in kaani ni ko woon ci yéwén loo ci weddi tey da nga ko ne ameel nga ma maanaam maa moom sa fa fii mu weddi waaye gannaaw ba nga mu yéwén loo yow ñu yey la nga xam ne moom la la joxoon te mooy nag wa ba tey kon ba tey nga del si waat mu jox la sa fas bu fa nekkee bu fa nekkul mu jox la xëy na ji àllal ji jox di gën a dëgg waaye laa ilaa xusumatin dootoo dellu dootoo dellu nag ci xuloo moom maanaam di delluwaat di wuti ay seede ak ci layeg yooyu du la ci fekk dañuy wan am dañoo yem maanaam xam ne dee di mu daxaa nekkal ci loxol ku ñu yey ko aliy waral waa ji tey da ngeen a yewen loolu da nga de fas ba nga xam ne moom nga ko ne woon maa ko moom ba ngeen génnee ñu yey ko ci loxoom kon yar ji mu dellu ci kanam tuuti bi maa ca nga xam ne dafa jëñ na ko su boobaa kon nagoo moom la joxoon moom lay del si nga jox ko ndem fa kon dégg nga de fi leen kaari ci wet da ngay xam dam ne fayal jiw dana dellu fi leen kaari ci wet bi dégg nga de bi maa ci nga xam dafa dina la ko mooy nagoom la joxoon moom itam wa ilaa ndem nga xam ne nagoo dafa faat fa bi xëy na kii mu dellu ci xëy may loola kon nag ñu seet bay xëy may nagoo nga jox ko ko moom itam mene walaa yar jiw waaw yi ngay jël yóbbu ci laa yar jiw ci kanam tuuti walaa yar jiw du dellu nag ci xilaat ci tudd comme ba ngeen di yéwén loolu dafa tuddoon ni ba nga ko ne maa moom fas yi mu ni waaw kon nag suñ ko yeeyee ci loxoom kon nag dul ci yow mu ne ka nii nag xamam bi moom ku ñu kay nu ni ci xamam moom aji jënd ja si attamil ci bàyyi yi wér gu mën a aji jaay ji waa ji dafa jënd ci yow mu wóor ko ne lii mu jënd yaa ko moom buñ ko yeeyee ci loxoom du del ci ci yow waaye laañ xaaloo fu ma ne wax na nag daaruhoo kërama maanaam nag dellu ga ci yow mustari kat du dàqu su fekkee ba nga xamee ne da nga koo jaay sa kër benn waay di ko yey mu ne ko këram la gannaaw ba bu waaj a fexee ba taxawal ay seede nit nag su boobaa këram la joojee mu waxoon du tee mu del ci yow mi nga xam ne yaa ko ko jaayoo wa fi ardin bu fekkee dañoo jaayee marchandise bi ardin jënde marchandise tey waa ji daf laa jox ab jaamam nga jox ko gëleem kon nag ñu yey gëleem nga nga xam ni moom nga ko joxoon kon mu dellu bi maa ci la nga xam ne xaraja génn na mu ne ci loxo mu del ci nga jox ko jaamam ndeen jaam ba faat ci say loxo aw ximati wala xayma ja su fekkee jaam ba faat na ci say loxo ñu ne faaw mu ne ilaa ni kaaxan ndare sëy sëy de moom jigéen su fekkee da nga koo canoon tey jox ko marchandise cane ko ko yàlla dogal ñëwee marchandise ma ci loxoom su boobaa kon it da nga naan ah da lay topp rek xëy may marchandise ma waaye du tax nag mu nit sëy bi dañ koy firi déedéet ndax comme sëy bi marchandise mi moo doon can bi ñu yey ko na nga topp xëy na ja rek waaye sëy bi moom day wen ceen waxu lan ak sumi koo jigéen joo xam ne tey masalan dafa sumi koo jëkkëram ci marchandise ñu yey marchandise moom ci loxoy jëkkëram du tax mu dellu ca buum ga waaye da koy topp xëy na ja wasu la am din ay yéwén loog tey day masalan benn waay da nga ko jam jam jam tey yéwén loog moom ñu yey marchandise ma ci loxoom la nga yéwén loowoon lu mu mënti doon ñu yey ko ci loxoom du jege ni mu ne day dellu ci xisaas déedéet da da lay topp xayma ja rek ba mu xaateel ak lu ñu dogoo jàmm bu ñu ko góor bii ci moom alhamdin walif jàmm wala nga ne marchandise mu ñu dogoo bii ci moom alhamdin walif jàmm ak jàmm dafa ñëw jox la marchandise ne la bii laa bëgg a dogoo yow pour ma gore nga jël marchandise ma yooyu ko ca loxo du tax nga ne ko da ngay diw ci doon jàmm déedéet da lay topp xayma ja dégg nga de da nga koy topp xayma ja rek aw mu kaatabin wala mu kaatab mu kaatab mooy jaam boo xam ne dégg nga day dafa ñëw jotoog yow yëkkatit maanaam marchandise jox la ni la lii moom laa dogoo yow biddiwu njotoo bi léegi ñu yooyu ko sa loxo kon su boobaa da ngay dellu ci xëy ma jare aw fu mu raa wala dundule dundule mooy lan ne ko da ngaa dunduloon waaye ak kër jël dundam ni ko kër gi jox naa la ko si jël dund yàlla dogal nga jekki ba mujj nga yëkkati ab jaam jox ko ni ko léegi damaa bëgg mu remplace kër bu ñëwee jaam ba ca loxoom it da nga day dellu ca xayma ja rek waaye dootu jël ci kër ga comme na nga woon naa jël jaam ba mu remplace dëkk kër ga nga ne ngay um ci tam dee wéy lépp mu wasiyatu mustayxin wala nga ni wasiyatu mustaxaqin dénkaane ku ñu yoy bi def ci saabas njaam la mel nañ di war lu wasiyin ku ñu dénk dégg nga de wahaajun ak aj haj in fu ri ko ndem xameef na ko ci réew ma dul fu yëpp ci ko jungor del waaye dafa ca teelu ñëw ci dëkk am ci at yu yàgg woote ne gor laa yàlla dogal muy faatu dénkaane ni nañu ma ajal wala mu dénk nit gannaawam jox ko ay yëfam su boobaa bañ jekkee ba nga xam ne faatu la ka mu dénkoon jëf dénkaane ya ka ko ajali woon ajali ko benn waaye ni cëpp ni sama jaam la kon nag ka mu dénkoon mu mu jaay bagage yëpp du war lu dara naka noonu ko ko ajali woon it du war lu ndem ñëpp xamal na ne waa ji gor la dégg nga de su ko defee nag luy def wax ko jàpp na sëy du sang boobee nga xam ne dafa ñibbi si ni moom moo kii fi nekkoon ak jaamam la dina jàpp maa lépp loo xam ne bii a jaayeef na ko ci bagaasam luñ jaayam ci bagaasam wala mu jëf tufaatul mu jàpp ak ubbi sama ni ci njëg dañ ko jaaye woon mu ngi noonu waaye nag su fekkee ni fekk na ko sax mu jël njëg joxe jëlaat ko mu mu di leen leen ci masala moomu bu la neexee nga xam dem ni wa ilaa ndeem dafa faat lépp lu mu fekk mu faat bu boobaa fatal xaasi bi ni ki aji fëkk la maanaam lañ koy tànnaloo lu mu ko fekk daf koy jël ca loxoy ka nga xam ne ci moom la nekk ci loxoom waaye lépp loo xam ne faat na moom njëg dañ ko jaaye woon dong lay jël mu ngoog ba tax mu ne woomaa lépp loo xam ne faata faat na ko sama njëg rek moo koy ñeel moom ko yey waajoo ji ci ngoog lépp lu mu fekk ca marchandise moomu taxaw mu moom mën na koo jëlaat lépp lu ñu jaayoon mu jël njëg dañ ko jaaye woon dégg nga de lu mu ko fekk muy jëmmi lu ñu jaayoon te mën ko jëlaat mu jël njëg a joxe noonu lay def nga ni ko ma soo di nekk suñu seede bi moom ci ci deyam ci dégg nga de dañuy séddale ay alalam ba noppi ay jabaram daal di fase dem seen yoon maanaam ñu bàyyi naal ay jabaram ndax dañ ko di ca toolu xare ba mu daanu ñu dikk ni benn ñu séddale alalam ba pare inu si dem gàntalef na baynatu ay seedeem mu jekki-jekki ne ñu jalañ ñu bisi su boobaa lépp lu lu mu fekk ci mbëttee fa muy taxaw dana ko jëlaat lépp luñ ca jaay dégg nga de te nga xam ne jëmm jaa nga fa mu joxe waat njëgg jëlaat ko lépp luñ ko jaay te mu faat dégg nga de mu dem seeti ka ko jaayoon mu laaj ko njëgg mu jox ko ko noonu lañ koy def moom itam dama ne moomaa lépp loo xam ne faata faat na ci alali kooku nga xam ne dañoo seede woon ak ngoram ba ay wéyal ay ndénkaane ba noppi fa sama lu njëgg la ka ko yey di am mu di la ni leen ci faat gi mu ne kamaalaw dabara naka doon te gannaawoon la te jënd jaam ca alali ka nga xam ne moom lañ yey ci ngor ka ca jëndoon ab jaam dafa gannaawal jàmb jàmb faat na ka ko yey bu dikkee njëgu jàmb rek lay jël aw kabira wala màgg faqiirul gone nga xam ne tey dañ caa jaayoon ca mbëccëf ma jaam bu ndaw yàlla dogal jaam ba màgg nekk mag su boobaa ka ko yey ci ngor bu ñëwee njëgu jaam ba lay jël waaye dootu ko jëlaat ndab baabul ndab nag mooy dafa am benn yoon wu yonent bi alayhi salaatu wasalaam rëdd soo bokkee nit ak kër ci séddoogu leen ko su jaayee wàllam te tagguwu la sañ ngaa dem sa kamu jaay jox ko njëgam gam ko jënde jëlaat genn wàll ga tax ci sa gas loolu mooy sax moo tudd tollant mooy saf wala ngeen bokk tool séddoogu leen ko mu jaay wàllam sañ ngaa dem sa kamu jaay jox ko njëgam ko jaayee jël ko tax ci sa wàll wala ngeen bokk lu mel ne tax te séddoogu leen ko mu dem jaay wàllam sañ ngaa fekk kamu jaay nga jox ko njëgam jël wàllam tax ci sa wàll kon nag sëriñ bi ni baabul asufatu ndax ak su sarisin mooy jàpp bokkaale mu jàpp xaqaaral aqaar te kanam tuuti bu ñëwee aqaar mooy kër wala pàkk wala tool ak li man tukkee wala si neen nga nga xaddam benn yoon da nga daan aqaaral aqaar dellu xaddamaat ci bopp kayit ni li man tukkee ci ka nga xam ne te jadd dañ yaa suna min kuhoo ak moomeelam dégg nga de nga xam ni waa ji yow yaa ko fi jiitu mu jënd sa mu jënd genn wàll ga nga dab genn wàllam googu kap bi nga moomoon walaw si mien doonte simi la woon baa koo xam ne jaay na almuslimu julit li simi ñeel simi léegi yow da ngaa bokk ak ab simi yu tàkk nga jaay sa genn wàllu ab simi yu ne moom sañ naa def te simi yooyu ni ki ñaari simi yu ñu bokk kenn ku jaay morom ku jaay genn wàllam moroom ma sañ naa def taaka ma ñoo xam ne atte lañ ilay naa jëm ci lu ma sa ñoo ma def aw mu xab bisan wala aji ubus le moom itam da ngeen a bokk yaa ngi moom pàkk moom mu ubus la wàllam boo jaayee sa wàll sañ naa def sa wàll woowee luy xab bisan ngir na ubus le waat te sultaan yi nekk buur julit masalan tey dangaa bokk ak benn waay pàkk waaja dee amul kenn ku ko doon nga xam ne buur moo teg loxo ci alalam soo jaayee sa genn wàll ca pàkk ba buur sañ naa dab waaye laa mu xam suñu xuma kuñu ubisle alay waral koo xam ne dañ ko ubisle genn wàllu kër ka bokk ak waaja kër ga bu jaayee genn wàllam kooku sañ ci dab walaw donte dafa bëggoon a dab luy xam sa ngir na ubisle waat koy du mën a nekk bu jaarin dëkkandoo du dab nit bu ngeen dendee kër dong soo jaayee sañ sa dab wayen malaka donte moo mën a tasaruxan aw yoon yoon yi nga xam ne mooy jaar seen diggante kër yi donte moo ko moom boo jaayee sa kër du dab walaa sin waqfin aji xool ji waqaf le boo xam ne dañoo waqaf le kër di la ko xooloo yow ka nga xam ne moo la waqaf le kër ga bu fekkee bokkaaleem dafa jaay genn wàll ga sañoo dab wa kiraayin ak tontu desu ko dab ñaari nit ñoo xam ne dañoo luwee kër ah bokk ko kenn ka jekk ba mujj mu luweewaat wàllam morom ma sañ ko dab wa fi naasiri miraas mi ci naasiri miraas naasiri miraas mooy koo xam ne da nga de imaama ko fal muy xool mbëcceefum jirim di ko garde ndax kooko bokkaale jirim ba bu jaayee sañ naa dab ak ñett ba dab xawlaa am na ñaari wax li man jàngoo ci ci kaw xam te ja dees ni ko moomeelam laa ci moomeel gu di aji war bam ne moomeel gu war mu wattandiku njaayum xiyaar kenn du ko dam ixtiyaaram ci coobare bam ne ixtiyaaram ci coobare it mu wattandiku koo xam ne tey dafa dee ay don ay donoom ñëw doon genn wàllam yaa ngi da ngeen a bokkaale pàkk bi ba mu dee ay donoom ñëw doon genn wàllu pàkk ba doone damay dab yéen doone ngeen génn déedéet bi mu xaawarit bu ci waxtalam tey wala moo son doonte xaaj bi ñu dénk la di bay ci jaay ni miskin ñoom miskin ànd say ci wax di gën a kon it su boobaa danay sañ nañoo def seen bàyyi dafa ne su ma dee sama sulusu kër gi nañ ko jaay jox njëgg miskin ya suñu ko jaayee ba noppi sedd la njëgg miskin ya danay sañ nañoo def dégg nga di fekk ko jënd loolu mooy alal dafay ci wax di gën a wala muxtaar wax du tali sama la xam waaye laa moo sunu ko ma xaaj bi ñu dénkaale loo ñeel ko di bay laa moo sunu ko ma ku ñu dénk loo ñeel ko kon di bay gis ñu ci jaay ab xaaj dégg nga de buñ nee nag tey waa ji dane bu ma dee sama kër gi nañ jaay sulus bi say dul ah kooka nag danay sañ nañu koo génnee déedéet ndax kooku moom dañ koy jaay jëmmi suñu sukkar ga mu dëkke bokkul nag nañu ko jaay jël njëg ga séddale miskin yi kooka donay sax ñoo dab ko ko jënd ba noppi ñu dabaat mu génn wala mun naa xelam dama ni woon asuf asuf nag ak su sarikin mooy jàpp bokkaale xaqaaran akaar dégg nga de mi man ci këcc koo xam ci jadees ni koo mooneelam wala mun naa xelam donte dañoo soxalante bii ci akaar bi ni ki tey waa ji dangaa bokk ak moom kër moom mu jaay genn wàllam benn waay jox ko ak kër fële mu jaay ko genn wàllam ca kër googa ah su boobaa kon wala ñu mun a xamante xalante maanaam mu ni benn waay jox ma sa kër gële sama jox la sama genn wàll gii nga xam ne kon dañoo weccoo ñoom ñaar yow ma bokkaale woon sañ ngaa dem ba kii nga xam ne moo dikk ci genn wàllam gii yeneen xasama ne ba nga déggee nag danañu seddoo danañu dab akaar yeneen xasama ne mën naa seddilikoo maanaam akaar dina mën a seddilikoo mu wattandiku lépp loo xam ne dafa taxaw te mënta seddilikoo dee su ko dab boo faa nekk na tamit wax ne itlaaxu boyal ga am na ñu ne akay moo xam lu ñu mën a séddale wala lu ñu mën a séddale donte lu demee nekk benn bitig bu ndaw la it buñ ko ko jaay sa morom sañ naa dab buñ ko bokkee boobu la jëfandikoo na bii ci wax ju mujj jooju ni boyal nañu ni lépp loo xam ne akaara des na ko dab moo xam ne des na ko séddale wala mënut ko séddale mu dab it nag dimi ci samani ci kenn jëf da nga xam ne moom la ko waaye jaay moom la ko bokkaaleen jaayee sooy dab sa bokkaale li mu jaayee genn wàll ji lu njëg ga toll noonu ngay dabe wala day nañ donte bor bu ko waroon dafa amee noonu benn waaye téeméeri junni fayee ko genn wàllu kër gi su boobaa sañ ngaa dab dem jox waaja téeméeri junni jël genn wàllu kër gi aw xiimati wala xayma ja waaw wala boog nga seet luy xaymay xaaj ba nga nga dem jox ko dabe ko bi dee ñuy ànd ak tayle su fekkee sa bokkaale ba mu jaayee dafa laaju tayle yow mi dab da ngay joxe ak tayle wa daa min ak aju warlu su fekkee sa bokkaale ka mu jaay da koo laajoon ku ko garanté yow mi da da ngay joxe ku la garanté wu jur daaj ak yoonu tegtal su fekkee sa bokkaale ba muy jaay dafa fayoon ka ko doon maanaam yoonu tegtal maanaam ki nga xam ne mooy koptóor bi yow itam booy def loola da nga ko joxe waaqali si laayi tof ko si njënd ma te itam doon jënd ci njënd ma lam ca fay loola booy def da nga ko joxe ba fil mag si miti kubal nag mooy lu buur di jàpp ci tooñaange nga xam ne sa bokkaale bi muy jaay joxe woon na ko ndax loola yow itam booy def da nga ko joxe ngaa joxe tërëñ am nañ ci déng déng aw xii mag si wala mu dabe xëy na xaaj ba ci ko luñ ci demee ni ki simikoo sa bokkaale dafa jël genn wàllu xaaj ba dem simikoo ci ak jabaram booy def xëy may xaaj ba ngay seet lu mu toll nga jox ko ndaw wasu bi am din ay yéwén loog tey li ci say sa bokkaale dafa jam jam jamu koy yéwén loog moom xaaj bi sooy dab da ngay seet xëy na xaaj ba nga yéwén nga nga dabe ko wa gisaati naka din jóoru kee sa bokkaale dafa jaay xaajam ci jóoru kee sooy dab nga jël jóoru kee joxe waa waaye xam nga jóoru kee kenn xamu ko moo tax da ngay seet luy xëy na xaaj ba nga dabe ko mu ni wa dana jàpp ndab bimaata la nga xam ni yàqu suhoo dana jagoo ko in sax ba ndem àndaale na xëy ruhoo leneen sa bokkaale dafa jaay xaajam boole ko fasam yow booy dabee la xaaj ba jagoo rek loola ngay joxe wala si ma war nag almustari ak jënd ja baax yi ndesit la waaye nag su boobaa la ca desit nag mustari muy fas wa dana ko continuer ci njënd ma wa dagan na dab ilaajul mu jëmub dik ilaaj sa ndeem woomal na léegi sa bokkaale dafa jaay nga ne ah danaa dab de waaye nag amaguma xaalis léegi ba weeru da laay mën a fay wér na ak daminoo wala war na ko man yun aju woomal wala ku woomal war na ba tey dina nga wa ilaa ndeem woomalul aju woomal lu gadduwu ko kon ujëne gaayaf sama nu njëggal léegi kon nag booba jëni yow woomaloo kenn gadduwu la ñun la gaawal fay njëggi léegi ñu ne faaw mu ne ilaan saaw yaa ne boo yemoo nañu ka ko jënd mu jëmub dik ak yow mi war a dab yéen ñëpp a ñàkk xut man ci ñàkk kon nag su boobaa ñu bàyyi la nga jëm ci dig ba alal muxtaar sox bin sànni imaam ndax ñu jël ko ci wute ba sëriñ bi nee na walaay jël su daganul te xaalatul bàyyi sottilub bàyyihu jënga de bii ci njëgg ala satihum war a satihum ca sos te xaalatu jooju bàyyi u jëm laaf maf'uulun bihi la maanaam yow dangaa jaay sa genn wàllu xaaj léegi ka nga jaay xam ni sa bokkaale dana dab nga dikk di ko fay si njëgg mun la léegi demal ca ka war a dab mu jox la njëg bi loolu daganul mu dële ne léegi ñàkk dagan gi ba tey mu ne ndax parce que day nañ si day nañ la mu ne kaan axasani keneen jàpp na min ajnabiyyin ci jaamu maalan alal li yàqu sa ngir la jàpp wayar ba xam mu tolewu su boobaa su ma laa sëpp di ko jàpp loo di ko ñaan yow sa bokkaale dafa jaay nga bañ a dab benn waaye ne la kaay ma jox la alal nga dem dali soo ñëwee jaay ma ma dolli la bénéfice loolu daganul aha bu boobaa it dootoo dootoo laa ak sa loxo dootoo dootoo jàpp xaw baaxa wala mu jaay xam laa ak si jëkk jàppam sa bokkaale jaay ne jotagoo jàpp daal di dem jaay kooku ñun la doo doo mën a dab di xilaat ak si maay loolu naa jàpp alal ba doxoo gannaaw ba nga xamee ni jaay na ba ba noppi dégg nga de lis ki sa ngir na soo ndab léegi mu sëri ki jënd xaaj ba ci sa bokkaale kooku sañ na ni la kaay ma jox la alal te nga bañ a dab kooku moom dab ngir lis ki sa ngir na soo ndab mu dële ne dama ne woon ak su atu ndab ak su sëri kin mooy jàpp aji bokkaale akaaral akaar dégg nga de li man ci tuuti koo xam ci garab yessi na min koo moomelam te sajari ni ki garab toolu garab boo ko bokkee nit dana mën a dab sëriñ bi nenoo dinaa yéen tabax gis na ko dab bi ak ci suuf daal di ubbi ci suuf ak ubbi maanaam su soo xam dañ koy ubbi le mbooloo ñu jëfa jëmbat fay garab ku jaay dégg nga de ñoom ñëpp danañu ku jaay sa morom dab xaw mu xërin wala aji ab moom itam dana dab su fekkee ne tey masalan daf laa abaloon suuf léegi nga jëmbat fay garab ba mujj ngay nga nga dem léegi day daal di jaay garab yi su ko boobaa ka nga xam ne moo la abaloon suuf sa moom sañ naa dab ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا